toujours dans votre actu du jour de ce 1er novembre 2024 suñ fa jegee nañu dem seeti ji Abdou Nguer nag bañ ko invité foofa ca Teranga TV am nay kàddu daal yoo xamante ni na ko teg ko ci comédien bi nga xamante ni moo nekk foofa ca Walfadjri lu waral Abdou Nguer yëkkati kàddu yi teg ko nañ déglu ji Abdou ak lan moo ko naqadi ci kii nga xamante ni mooy le grand comédien nekk foofa ca Walfadjri saa njógu bu dee fenkat dama saagawuma yaayam saagawuma baayam te ku mérito ma saaga yaayam la ndax daf maa tooñ mais saagawuma ndeyam saagawuma baayam nee naa la fenkat la màggatum fenkat la jalgati xibaar la doon def jalgati xibaar doxatul daw na dugg passif ndax Pastef moom booy fen ñu fay la. yow da nga koo xamee carte membre Pastef. waaye dimbali ma moom programme am yëpp Pastef la. di leen fenal guddeeg bëccëg comme ñambaas na ma ci nag pareegul kii ultimatum laa ko jëlal bu mu heure bi damay. est-ce que da nga amul loo ko waxal rek a man xam naa ne day fen wax na la léegi yow après jël sa caméra nga dem laaj ko li nga waxal ñi foo ko teg. léegi sama te bu defee face ak man wax ko lu raw loolu laa koy wax. duma yam ci day fen rek daal temps yi wax ju ñaaw daal moom léegi yow. parce que ci limite ju ñaaw wa tax jëf ju ñaaw moo tax wax ju ñaaw di am. am de mais est-ce que en tant bi ngeen di woote surtout seen mouvement yow nga dem bokk ci gis sa bopp. noonu nga war a taxawee. ah seen da nga war a indi lu leer teg ko ci kaw taab yu. léegi man wax ko ci yar ak teggin. léegi man li ma wax moo ci yaradiku ñun de baaxawuñ Sénégal di wax mag la nga wax sànq. Ah, day fen. baaxoowuñ di ko mag nag mag bu demee fenal xale bu ndaw xale bu dund ko dangay ngay fen. ah dégg loolu loolu baaxoowuñ waa léegi dinaa la wax dinaa ñaari baat. diw day fen. bànqal baaram. ak fenal diw ban moo gën a aay. ban moo gën a aay. maanaam tey man ma fenal la. nga dema ma da ngay fen. ak man mi la fenal ban moo ciy bàkkaar. wax bi du foofu de mooy fii ba. kon ñoo ko déggandoo muy réaction à de Abdou jëmale ko ci comédien boobu nga xamante ne moo nekk wal fajiri nee na kooku su waxee li nga xamante ni du dëgg ay fen la daf koy taxaw ne ko fenkat nga loolu du saaga muy ay kàddu Abdou Nguer nag parce que dafa yëkkati ay wax waxal ko ay nit yoo xamante ni tegu ko fen moom Abdou mu jàpp ni que kii nga xamante ni mooy comédien bi nekk foofu ci wal fajiri li mu wax ko tegee alors que nag kooku wax na ko ñun fii ci Sénégal dañu baaxoo soo waxee mag da ngay fen dañ ko jàppee saaga mais Abdou Nguer jàpp saaga maanaam dafa wax li nga xamante ni dafa safaanoog dëgg te lu safaanoog dëgg maanaam mooy fen te nit ki su ba yàgg ci fen dañ koy tuddee fenkat en tout cas mi ngi mel dans buy kàddu Abdou yoo xamante yëkkati na ko jaglal ko kii nga xamante mooy le chroniqueur de Walfadjri <laughs>